Fane ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak El Hadj ci walu communication observateur di dinu fatali bak yu gatt fan yi fi nguur fi jaaroon bu fi yëpp ëndaale ci patali maître Abdoulaye Wade wàcce woon ci géew il faut travailler toujours travailler encore travailler président Macky Sall naan la patrie avant le parti réew mi te parti bi naka nonu gouvernance sobre et vertueuse di yorin wu sel ci yenu mana président Diomaye naan jub jubal jubanti observateur ne yoy yene yep nak ci wàllu parparloo ak politique naka nonu seddo ci lay mujj leppay ñew dandal yëf yi ñag ba gouvernement bu Sénégal nak nekk ci séminaire diblal ngir gën a tàggatu ci seen liggéey yéen leen dénk ne ay ministre le soleil des président Bassirou Diomaye Faye ñeent la leen dénk nag mooy ngor yitte ci askan wi ak oyof naka noon it ak xereñ premier ministre Ousmane Sonko ba tey ak le soleil ne séminaire bi lu ñu soxla la woon ci source a président Faye naan ca rupture di dogoog la fi nekkoon mu ngi tàmbalee ci soppi anami liggéeyin moom président ne la muy xaar ci séminaire bi mooy mu jox jëwriñ yi xam-xam ak jumtukaay naka noonu yoonal gi war ngir jiite département ministériel dañu leen xaarit ci jëwriñ yi ñu doxale lañ fa jële yépp ne xam-xam ak i tëralin premier ministre Ousmane Sonko naan ci yéenekaay bi naam amul l'école bu ñuy tàggateeb ministre waaye bir na ko ne kenn ku ne ci jëwriñ yu ñu boole ci nguur gu bees gi am nga xam-xam bi ak jaar-jaar yu lay may nga doon jëwriñ ji gën ci taarix gouvernement bi nag ak na muy liggéeyee ak ñàkk xam la ñàkk wormaal république wala yoonu bees wu ñu tànnal seen bopp laaj bi direct news moo ko xëy def ak bataaxal ak ndajam conseil des ministres bi ñu dul toftal li ma président ñamu fal bees ci fonction yu yi naam ñu daa am na sañ-sañu fal ku ko neex ak fam ko neexee waaye ba fii yooyu ak pal ci njeextalu conseil des ministres lañ ko daa ci journal l'info mom société civile bi ñooy xamle ni yónnee nañu bataaxal njiitu réew ngir daje ak mom, waxtaan ngir sàkku ci moom ak doxale Niel pacte national de bonne gouvernance pacte boobee nag ñu fàttali ne la muy woote mooy ak tëggaat ñeel institution yi di bànqaas yi kilifte fii ci réew mi gën démocratie bi yok état de droit di yonal gi ci réew ak it yorin wu sell naka noonu gën a citoyen bi keneen ku bëgg a daje président Bassirou Diomaye Faye maire bu Ndakaaru Barthélémy médias ci les écoles la ko xamle mu ne ndaje bi nak dara warlu ko luddul jëmmal projet yi ngir ville bu Ndakaaru dana ko yónnee mu bata xal ci na ko ni défé won ak président Macky Sall ñu dess ak Dakarou ak liggéey ci littoral bi di tefes ak le quotidien ne Pierre Goudiaby até moo moko xamlé lepp luy liggéey ci digdigal boobee président Bassirou Diomaye Faye dakkalandi na ko moom Pierre Goudiaby Atepa xamle lu ni mel demb ci dimanche di ci émission point de vue ak Oumar ñi ngi ci RTS le quotidien ne état bi li ci ca fekk ci ak li nga la tribune ne président dakkal na sax muy immeuble hôtel villa de luxe lu ne daa jebbi ci corniche ouest bi bi ne gi Ousmane Sonko dige woon la bi ñu yootu gi leneen ci la tribune di laaj bu bi def ne mbaadu Sénégal dafa ne ci danger ak ONU mbootaayu xeet yi fal ab ndaw émissaire spécial ngir ndakaaru yéenekaay bi ne la ñu tàmmoon ONU réew yi ci crise la daa yónnee ndaw yu ni mel ndaw li nag Ould Cheikh Ahmad la tudd yéenekaay bi la tribune di leen gën a xamale ak moom président Macky Sall ak xalaatu topp ko ci yoon ana ku xalaat lu ni mel kenn ci avocat Ousmane Sonko la maître Clédor Ciré Ly laas la mu a toppee président Macky mooy haute ndax mu ne jéego yi mujjee teg ci bi nguuram di jeex professeur Ndiak Fall di pénaliste ne ko du yomb de lu compliqué la nar a doon monseigneur André Guèye évêque bu Thiès yéenikaay bi fàttali moom ay kàddoom mu ne jàmm du am lu dul justice yenn ci saay-saay yu ñu war a àttee dañ leen di jéemal liggéey ak kort ak yeneen am na ci sax kuy nettali ne bis am na détenu bu ñëw teew ci kanamam ak benn dàll beneen juge di nettali parent di wayjuru ab détenu ku ñu waroon àttee buy wër di laaj turu wayjuru juge boobee umax Diouf psychologue conseiller la moom la mu gis mooy ci yéenikaay bi di observateur wàllu cëriñ ak xarfa fuufa luy dalal xelu ki ñu war a àtte la ci kanamu tribunal moyen de défense la ay défense bi gën mooy di wax jàmm di ko def CCP